asalaamaaleykum mbokk internet ji maa ngi leen di ziar ponkum xibaar yi dana bari lool juróom-ñetti footbalkat yi Barcelone yu nekk infirmière yi bokk na ci liy jeexal xibaar yi waaye Dani Olmo ki nga xam ni uh, moo nekk entraîneur uh, bi la di uh, bu Manchester City ak ki la nga xam ni moo nekk Rodrigo Goes gars yi ponk yi bari na waaye topp leen nu ñu àggale lépp ziar tayin commentaire ci commentaire YouTube ma Malick TV am sa boutique ak ki la nga xam ne mooy Matar Diagne ñoom ñaar seen taxawaay rafet na mais taxawaay ñëpp nag rafet na lu bari quoi damay ñëw rek ci kaw gis leen sa quoi mais maa ngi bëggee ñëpp gars yi euh, abonné yi bu leen ci des ginnaaw abonnement bi dana tax luñ dugal man koo am en temps ñu doxantu ndànk nag euh, caabal fas wi euh, dem wuti kii Dani Olmo nag mi nga xam ne dana dellusiwaat nag ci terrain yi contre Celta Vigo match bu nar am solo moom mooy ne ci digg milieu terrain mais heureusement li ci neex ci catalan yi mooy day fekk mu nekk ah, ci jàmm ju mat sëkk maanaam li nga xam ne tamit moo nekk maanaam performance am ah, taxaw ak fa mu nekkoon man faa dellu digg mi la terrain bi jalax beeg yooyu yëpp ah, daanaka catalan yi seen xol sedd na ci loolu beneen information boo xam ne mi ngi fi Achraf Hakimi ñu ànd ak Real Madrid ñi ko yaakaaroon mën nanoo dem raase naw ndax xam naa ne fi mu toll nii nee naa leen woon président Nasser Al Khelaïfi la muy togg bu fekkente ni yaasa ginaar la bu ñoree dina doon musiba ci merengue ndax loolee ñor na xaatim na ab contrat bu yaatoo yaatu ba 2029 yaa nag yaakaar naa ni ah, lii na ko ak équipe bi fi nii daanaka lu toll ci ñeenti at yoo xam ne lépp ca kanam dana mën a di football foofee moom mi nga xam ne ab marocain la di latéral droite te Real Madrid soxla woon dëgg-dëgg latéral droite kon yoolu ngar nan ko li Mbappé ameen moom heureusement du ko mën a am ndax Paris Saint-Germain da koo tëj tic ci nii ngir bëgg mu bañ a dem foofee ca équipe bële di Real Madrid Rodrigo Gomes gis ngeen ko xam du am problème du tee dana mën a bokk ci li nga xam ne mooy euh, match yi war a am ci biir euh, li nga xam ne mooy décembre bi euh, peut-être nag mën na am mu dugg si ci li nga xam ne moo nekk match yi ci kanam mais li gën a wóor mooy décembre bi ci début bi dana mën a bokk ci match yu ama am solo yoo xam ne dana ko football lu ko mayit xam naa Carlo Ancelotti bu fekkee soxla na ko ndax Rodrigo Goes mi nga entraîné tout seul entraîné wul ak groupe bi mais moom kese mi ngi ci bokk di entraîné ba ci li ma xam kon moom moomay duri dur googu su bu fekkee lépp doon na jàmm rek fu ko entraîneur bi soxlaa dana ko mën a récupérer mais li doon gën mu bàyyi ko mu noppalu entraîneur bu baax a baax ba atum euh, ba ci 2000 euh, ba ci mois de décembre ma jéggulu Jules Bellingham it moom mi remporté prix bi nga xam ne moo nekk ah, footballkat ah, bi gën a xarañ ah, ci li nga xam ne daanaka mooy liga bi ci weer bi nga xam ne moom la nekk loole nag yaakaar naa ni association yi nga xam ne ñoo nekk ca football espagnol ci wàllu joueur yi ñoo ko jël daal di ko koy tabb mu nekk lu mu mérito wala lu mu mérito wu loolu dama leen di bàyyi rek ngeen joxe ci seen xalaat ndax xam naa ni bari na footballkat yoo xam ni da ngeen ma ko mën a génneel ci li la ko ci mel ni ñoom Fede Valverde ñoom ñëpp loolee seen xalaat laa moom taxaw taxawul benn yoon ngir maanaam kile di Pep Guardiola mu mën a dem xaatim am contrat fële ca euh, li nga xam ne mooy Brésil annoncé woon naa ko fex est-ce que gars yi déggun sama annonce ba non damay tooñ annonce boobee nag ba euh, mu euh, boo xam ne bu mucc ayib la waaye ndekete yoo Manchester City du ko bàyyeegul tegalaat na ko ci taabal ji li ko dese woon yeneen ñaari at sëngëm yoo xam ne dana tax nag mu mën a dem ak moom mii ba atum set euh, marque André Terguiseghen ci li nga xam ne mooy maa ngi ci lii lée di blessé yi moom mi nag blessé na ci équipe bi li nga xam ne mooy Barcelone euh, ci blessé yi Barcelone ñëw ba mu mën ko andi tuuti ay xat-xat loolu ci laay dikk nag moom nag ñu ngi koy xalaat ci janvier bi nga xam ni euh, moom lañ dëgmal kaneen koo xam ne tamit ñu ngi koy xaar muy Ferran Torres maanaam mois de février ak delsiam ci atum 2025 peut-être mën naa am mu ñëw mën naa am tamit mu romb loolu mais li leer ba leer mooy Ferran Torres moom gaañu na mu noon ko blessé na teyit bokkagul ci ñi nga xam ni ñoom la ñuy tab bu ñu mën a football ak équipe bi la di Barcelone kon moom moomee bokk na ci lim bi yokk fële ca infirmerie keneen koo xam ne na ca infirmerie yàgg na fa muy ek euh, Hector euh, Fort moom it gis ngeen ko blessé na teyit retouram maanaam inconnu la amul kenn koo xam ni mën na la wax ni bis sàngam bu fa agsee dana football ay mbiram ni ngi koy lëñbët lépp luñ ci am danañ leen ko andil Euh, ci télévision Alhaji Malick TV Sport Ansu Fati moom xam ngeen ni mu demee moom blessé na tayit yaakaar naa ni dana ñëw ci décembre bi maanaam ci li nga xam ni euh, mooy euh, de retour boo xam ni bu am solo lay doon nag donte blessé na mais day soxla récupération totale boo xam ne day tax mu mën a dëgëraat ba fa mu toll woon ci wàllu forme mu mën faa delluwaat moom mii di Ansu Fati international espagnol bu soqi ko fële ca Guinée Bissau André Christian moom it euh, xam ngeen ni ma nga infirmière infirmière bi moom xam naa ne euh, fees na dell quoi mais moom it dana dellusiwaat ci lu dul yàgg dara moom moom mee nga xam ni euh, mi ngi football ca équipe bañ naan Barcelone nagaaw dellusiwaat Barcelone infirmière bi fees na dell mee du tee nag ñi téye intérim bi ñi ngi doxal 5 sur 5 Marc Bernal tamit moom ngeen gis ko noonu tamit ngeen xam ne blessé woon na blessé boo xam ni bu métti la woon ngeen tegoon ci seen i gët tamit maa ngi lim euh, support euh, Barcelone di wax ni seenub équipe jàmbaar la mais blessure yi ñoo leen sone sonal Lamine Yamal nag ngeen gis andi ak ci xibaar moom it dana ñëw presque euh, fii ak maanaam une semaine wala mu bañ koo mat sax dana ñëw le côté le cinq yooyu dana war a mën a disponible mais est-ce que gars yi danañ ko soxla damay ragal ñu yóbbu ko ba ca le la 30 wala le 31 ci li nga xam ni daanaka mooy prochain mois maanaam ci gàttal benn semaine ci kanam tuuti yeneen information sama gars